asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyuwaat te di leen jaarat te di leen joxaat seen wàccuwaay bu baax mel na ni kom ni ko doon defe suba léegi ñu dugg ci guddi gi nga xamante ne mooy guddik bés bi nga xamante ni mooy bésug màggal Mbàkke Kajoor di Cheikh Mouhamad Amin day mel ni ñi ngi toog ay ki jëwriñ yoo xamante ni bu nu tuddee màggal gi fii ci kër Cheikh Abdou Aziz Mbacke mun ñu leen ñàkk tudd ndax lu ci ne dafa am base lu ci ne dafa am tàmbalikaay lu ci ne dafa am ñoo xam ñoo ko fondé ànd ko sëriñ bi ñooñu ñu mu nekk mooy ñu ñu feggool bu ci njëkkee nuy jëwriñu universel muy euh, Cheikh Mouhamadou Bara Gueye euh, nga xam ne diggam ak sëriñ bi lu yàgg la yàgg boo xamante ne kemaan la euh, mu mel nit noonu lañ ci tuddee sëriñ Cheikh Sow moom it nga xam ne ni waxee sëriñ Bara nañ ko waxee boobu ba ànd ànd bu yàgg boo xamante ni lépp ci sëriñ bi waaye sëriñ euh, Moustapha Dia nga xam ne moom it di bëkk nekk sëriñ bi nga xam ni noonu la ñu euh, ànd ak liggéey sëriñ bi ngir jëmmi sëriñ bi ak Cheikh Mouhamed Lamine Bara rek tax kon noonu la ñuy jël mm, kaddu gi jox ko Cheikh Mouhamed Lamine Bara Gueye mi nga xamante ni mboolem jëwri ñi nekk ci gox yi ak gox goxaan yi moo leen lëkkale kon suñu baara ginnaaw bi la nuyoo ziar la jox la sa wàccuwaay baax euh, jox la kaddu gi nga wax. ci bés bi nga xam mooy bésub Cheikh Mouhamad Lamine bi euh, doorte bi ak fi ñu nekk ak ni liggéey bi doxee ba tey fi mu àgg si. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku ne sa ak sa sent di leen baal di leen baal di ñaanal ci nuyoo bi ziar bi. xalifatul aam di taaifatil muridiya ci Amadul Muntaxa su borom yàggal ko fi wéral ay cëram ba li mu fas yéene liggéeyal maamam ji Cheikh naa Cheikh Amadou Bamba suñu borom defal ko ci lu kawe njort di ñaanal bu baax a baax sunu sëriñ sëriñ Abdoul Aziz sunu borom yàggal ko fi wéral ay cëram ba li mu fas yéene liggéeyal maamam ji Cheikh Mamadou Amin Baara suñu borom defal ko ci lu kawe njort waaw comme ni ko Serigne Saliou Mbaye waxee rek maanaam yëf yi moom sunu boroom dafa def ñu tàmbale ko ci sunu tout tànk ànd koog sëriñ bi booba metti woon na lool jafe woon na lool it nag waaye ñu ànd ci ak ngor ak fulla ak fayda ak fas yéene liggéey liggéeyal si amoon lañu baara ba sunu borom yeggale ko fii mu yegg fii tey ñu ngi sant yàlla bu baax ndax. du suñuy pas-pas du du du du suñu njàmbaar ndimbalu Serigne ndax mujj mbir mi yaatu woon na lool waaye boo xoolee doxin wi ca ñi ci maanaam metti woon na ñii ñi bàyyi ñi jàpp ñi bàyyi ñi jàpp ba tey suñu borom subhaanahu wa taala exil ko fii loolu nag dañ ci sant yàlla bu baax di ci sant Serigne Touba di yokkaat nag maanaam maanaam maanaam maanaam maanaam soññe bi jëmale ko ci taalibe yi ndax kat ku ne xam na ne màggalu Mbàkke Kajoor du màggal gu ndaw maanaam màggal gu mag la rawatina nag fii nga xamante ni fi dañ koy defee mooy kër Sëriñ Abdou Aziz Fall ku ne gis na ne bu ñëwee ci kër gi gis na ne maanaam li fi ñëw ci matériel ku ne gis na fi maanaam li fi nekk ci ay doomu aadama ku ne gis na fi li fi génn ci ay berne te loolu nag maanaam lenn lu waralu ko lu dul mën a dul taalibe yi ak sëriñ bi wax maanaam moo tax ñu ci soññaat bu baax a baax a baax taalibe yi kenn ku ne foo mën a nekk nga nekk biir réew mi moom nga nekk ci bitim réew nga gën koo bàyyi xel gën koo jox yitte gën ko jox wàcc waay ba waxtu wuñ ci tollee lépp lu luñ ci bëgg a saafara mu saafara ndax kat wax dëgg yàlla chaque année dama koy wax dama leen wax ne sëriñ bi moom war nañ ko mën a teggil maanaam benn dërëm muy dem ci màggal te loolu nag suñu doxin ak suñu pas-pas ci lañ war ci lañu war a dox war cee dox ba képp koo xamante ni maanaam yaay ab taalibe nga fépp foo nekk fu màggal jotee nga dagg si ittee boole kook làmb sa poos ñu dajale ko maanaam fas yéene ci liggéey Cheikh Mouhamadou Lamine baar wax dëgg yàlla dey ñun day rëccu li ñu doon liggéey Cheikh Mouhamadou Lamine Bara te ba léegi maanaam waxtu wuñ ci waxtu wuñ ci wuñ ci wuñ wuñ wuñ ci demee ñi ngi gis ñi ngi gën a gis suñu bopp ak yokkute aw dox te loolu it lañ lañ yéene taalibe yëpp loolu lañ yéene taalibe yëpp ndax ndax ndax jëwrin moom loolu rek loolu rek la am maanaam mooy soññee kon nag wax dëgg yàlla li ma ñam laa ni bëgg murit yépp ñam laa bëgg murit yëpp ñam moo tax maanaam ma bëgg ñëpp taxaw maanaam laxasu ñu fas yéene liggéeyal Cheikh Amadou Lamine Bara suñu wasila Cheikh Abdou Aziz Mbacké ibnu Cheikh Mouhamad Fadal ibnu Cheikh Abdou Aziz ibnu Cheikh Mouhamadou Mbara ibnu Xaadimu Rasuul di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool tamit fan gu gudd ànd wér di santal yàlla bu baax nag di wax alhamdulilah ndax ak sant yàlla bu baax ndax am na ñu ko fekk woon daaw te fekkuñu ko ren am ñu ko fekk woon daaw te tëluñu ko ren kon ginnaaw bu ñu yàlla mayee ñi fekk ko daaw fekkaat ko ren jii te wér yàlla na suñu borom gën a meññ fekk adat barke Cheikh Khadim di sant sama jëwriñ ñi ma den la sëñ sëñ Bara Gueye di nekk jëwriñ joo xam ne jëwriñ ñu noppale la ndax lépp luñ mës dugg du nekk loo xam ne day yëkkati na def leen waaye day ñëw ne ànd ci li sëñ sëñ li naan si mbiri sëñ moom da ngay tàmbali bi yeggale bu ñëwee dañ naan nañ def sëñ bi danañ ci fekk ji nga xam ne man sama jëm bopp man miy wax rek daanaka lépp lu may def su ma gëstuwut gis ko rek daanaka dama cee tayal waaye loolu lépp ak bool la ngir jëm yàlla yonent Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Mouhamadou Bara Cheikh Abdou Aziz di wax na magal gi ñun ñëpp liggéey Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Bara moo ñu tax a jóg waaye ñun ñëpp dañoo war a gën a jaajuwaat gën a taxawaat te xam ne màggal gi du nekk ne ay kenn benn ñaari ñett ñoo koy def maam mbir doole la te li ñuy wax rek maam mbooloo mooy doole. waaye ñun am na nga pas-pas pas-pas li suñu suñu si Abdoulaye Sy Mbacké di wax naan pas-pas loolu moo des ci nit ñi dañoo war a di gën a farlu gën taxaw ci Mbacké Kajoor gi ndax leen lu ci nekk jaayante lu man doon dañu war a taxaw jaayante ko def ko ci ngir bis bi waaye buñ nee nii ñu ne sëñ bi nangam dañ dem ci sëñ bi nañ jox sëñ loolu dañ ko dañ dañ ko war a dépassé ñun ñëpp dañoo war a jaayoo di yëkkati suñu alal di def di manage lépp loo xam ne taxawal lañ ko ci ngir jëm yàlla yoon suñu ci Mbacké gi ñëpp ñëpp seew taxaw ci mirage suñu àll def suñu lépp ngir mu jag waaye bu ñu nee nii rek ñu ne dañ dem ci bi nañ dem ci nangam loolu loolu loolu màggal gi ñu taxoon ndax boo xam mbooloo mi sëñ bi taalib yi mu xiir ci màggal gi kon ñun ñëpp dañoo war a jaayu màggal bu ñëwee ñi def ci suñ kémtu lay kattan barke sëñ Tuubaa ndax li ma rek chaque année màggal day nga doyoo ko ndax màggaleen nañ ko fi nu ne. man man màggal gi bañ koy daga tàmbale ba nii yàlla ñu ko gën a di ko di fekke fekk naa màggal yëpp màggal gu ne màggal te lu ñuy gën di dem màggal gi gën a too feexe barke sëñ Tuubaa lu ñuy gën di dem màggal di gën a too feex màggale nañ ko nu ne waaye nag loolu ak sant yàlla mbir nag bu dee yokk day xam ne day xam ne yow tam naa war a jëm yokk di ànd ak moom ndax boo ci defee benn chaque année da nga ci def fukk waaw ndax ñun ñëpp bi ñuy dugg ci màggal gi kenn ku nekk yorowul liggéey bu dëgër maa kenn ku bu dëgër te ñi sant kenn ku nekk yaa ngi jàpp ci loo xam ne bis mu ñëwee da nga yëkkati sa àll dañuy def kon loolu ñi nga xam ne tal bi Serigne Abdou Aziz Mbacké mooy ñi xam ak ñi xamut ñun ñëpp ñi jéem a jàppante te jéem a nekk ko benn ñëpp ñi di ñuy xàccandoo di dóorandoo xam bu ñu ko defee rek lépp lu mën doon yàlla yoon suñu Tuubaa dana ko saafara waaye bu ne bu ñëwee rek. nga lekk ba suur nan ba mandi daal di màggal gi neex ma te fekk jëriñ yi mun xamul nu ñu def xamul nu ñu def bi xamul nañu loolu loolu tam dañ ko war a dépassé ñun ñëpp dañoo war a di jaayoo xanaa mën nañoo def lu ñu def lépp te duñu yëg dara ci màggal gi kon yàlla nañ ci yàlla may fekk ñu fekk ay at at barki Seex Xaadim te ñi nga xam ne amul. waaye daanaka suñ jëriñ yi li ñu waroon a wax lépp wax nañ ko. kon mbir mi moom daa nekk loo xam ne dang see bokk la ak luñ la boole ak loo xamee danga koo fekke te suñ suñ jàmbaar jii di suñu Abdou Aziz ku ko xam xam ne jàmbaar la joo xam ne ku ànd ak moom booy kuy dox du ànd ak moom kuy waaxu du ànd ak moom kuy ñukki ñukkit du ànd ak moom ndax moom doxut waaxuwut ñukk ñukkuwut day daw kon kuy daw képp mooma mën a ànd ak moom ndax yaakaar naa ne ba dara du dara ba tey di dara metti woon na lool lépp nag fekke nañ ko ba muy nekk daayira Touba 2008 jàpp 2009 ba tey di 2022 kon loolu yàgg na nekkul tey mu nekk jàmbaar lool joo xamante ne lu mu sumb rek bu geesoo gi gis ñoom siñ baara siñ seex ak sama jëmm ju xeebu ji ak ñoom siñ pap saw ay buuba di ko dolli pëseef liggéey bi di dox ba daayira dakaar bi soqee ko si daayira Thiès daayira Noto ñëpp di ñoo xam ne ay jàmbar lañ ñu ñu am pëseef ñoo xam ne duñ geesu duñ duñ duñ xalaat dara bëgg-bëgg sëñ bi mooy seen bëgg-bëgg kon ñi ñi ngi koy ñaan suñ baara lépp lu ñu sumbati mu yokk lépp lu ñu dëgmal bëgg koo taxawal sa borom kàttanal ko bëgg-bëgg yaa ngi fi pas-pas yaa ngi fi mën na ko na na ko def ñi ngi tuub nag baax a baax dañoo munta wax ci ah, kàddu segam sëñ baara wax na lépp rek ñuy ñu koy ñaanal nag muy jëwriñ ju ju kenn xamul sax noo ko moom ma a waxee ndax xalit moo xëpp rek moo tonni si kër gi rek boo ko sottee da koy dékku du xuloo du xeex loo ko wax day day sëgg jàll kon jëwriñ ju mel noonu rek ku ko am doy na sëkk ndax yaakaar naa bu mënta lii lii ñu nekkee tey duñu am fitu di ko def ndax saa yuñ geesoo gis ko rek doy na tawfeex ñi ngi ko ñaana mu yàgg fi lool kenn ku nekk nag la mu yéene saa borom may ko ko di ñaanal sëñ Abdou Aziz Mbacke saa borom yàggal ko fi lool ba naal yi mu bëgg naalal maamam mu àggale ko ñu ngi taxawlu foofu rek di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu. macha mel na ni nañ ko defee ci digg bëccëg gi rek ànd ko ak mbokk taalibe ci ay témoins waaye ci bis bi nga xam ne bisu Cheikh Mouhamad Lamine Bara Mbacke nga xam ni uh, sëtam bu tedd bi nga xam ne mooy Cheikh Abdou Aziz Mbacke ñu jóge ci gox yu fasantikoo yëpp day mel ni ñu ngi toog ak ñoo xamante ne nag ñu ngi bàyyi ko foofu sa cees euh, waa ñu ngi suñu Baye Mor Camara suñu yaali ak jëwriñ euh, jox wàcc waayam bu baax a baax ak mboolem ñu ne yëpp Pape mu mel ni kon euh, kii yëkkati kàddu yi xam naa ni mooy suñu yaali mu wax ci turu maanaam mboolem ñi nekk ci gox bu cees wëllëre yi kóllëre yi ak seen diggante ak sëriñ bi ci kóllëre gi yàgg gi mu yàgg ak lu waral seen juraay seen teewaay fii si Mbàkke Kajoor bisimilah ñu ngi leen di di leen sant bu baax Baye Sall di bëgge di bëgge Baye Baye Mor Camara ak seen bàcc waaw sëñ bi nag moom amuñu fayam moom dañ koy sant ñun moom chaque jour euh, si sant ko lañu jóg si la nekk ndax lu ba daa def si ñun def nañ si ñun maanaam génne si ñun rëy ak tabe tabe ak taalibe moom mu def ko si ndax taalibe mooy lépp ndax Sëñ maam képp ko jàpp maam doo ko rëccu loolu xam naa ko lu wér jëmmam ji nag daxaa yemale ñëpp ndax gis naa à chaque fois maam saa su ma ñëwee si moom jëm saa su nekk gis naa jëmm façon jëmm bu nekk bu ñëw si moom mais ñëpp la mën a recevoir ñëpp la mën a nekkal loolu nag bariwaan na ñoo xam si ni mënuñu ko amaana loolu lu mission boo xam ne moom lay sin ba moom la ko sin baal koy liggéeyal ñëpp waaw doolu sant gi nag mooy bàyyi léegi la may wax naa mu ngi koy sant bu baax waaw moom itam santam xam naa ko ndax sëñ moom moom sëñ da koy sant kon yow dara ump la mais loolu lépp si baaxu sëñ bi la waaw moo wax dëgg moo jàmbaar la man parfois ndax ma xaw a kii mais moo may soññaat si yoon bi waaw moo may soññaat si yoon bi waaw mooy ku baax la ku ku am yar la ku am teggin la baag sëñ Tuubaa andi andi euh, Baye Sall li gën a neex nag mooy yëg Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa dañ koy dund ñun nag dañ koy yëg dañ kaa dund waaw ndax xam nañ euh, si euh, lu ñu weesu woon démb ak fi ñu nii. mais Sëñ Tuubaa moo nekk si ñun mais nag lu si lépp nag seen assise moo nu ko def moo nu moo nu moo nu wan kan mooy Sëñ Tuubaa liggéeyal la suñ ñun ñun maanaam du demee bari maam exemple la di dem bay téye micro di sant suñ Tuubaa kon xam na ni suñ am na lu mun def waaw du mujj xeebu yi nga xam si ni mais ku ko jàpp daal mhm. jàpp nga suñ Tuubaa comme ni ñu ko doon defee ci euh, suba ba léegi waaye mel na ni tey nag ñu ngi toog ak euh, sango bu baax di kilifa sunu kilifa euh, di kenn ci njabootu sëriñ bi moom tamit kenn ci njabootu sëriñ bi nga xam ni bu nee sëriñ Basiru Mbakke moom sëriñ Seex Mbakke moom Seex Mahamadou Muntaxa Mbakke mu mel ni mu jaar ak bi fu bari ci wàllum njàngoo. ak yu bëree bëri bëri xam ne Mbàkke Kajoor ñu ngi lay jaar bu baax di la jox sa wàccuwaay waaye mel na ñu ngi feggoog sëriñ Saliou Diouf moom sëriñ Saliou moom di ko jox wàccuwaay bu baax nag eh, di amaat mbégte ci teewaay bi kon Mbàkke ñu ngi lay di la jaar bu baax eh, di la jox sa wàccuwaay di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. ñu ngi nuyoo ñu ngi nuyoo ñu ngi ñu ngi nuyoo eh, nuyoo bi lislaam wa barakaatu. di di wax alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla bu baax te julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant bu baax di sant yàlla bu baax a baax di sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu Tuubaa di sant mag mag ñi waaw waaw waaw di di di sant yàlla bu baax nag ci teew guñ teew ci bis bi waaw ndax bis bi moom eh, wax di yàlla xam naa képp ku koo xam ne yaa ngi yëg yaa ngi yaa ngi yaa ngi borom yitte ju rek dana ko bàyyi xel waaw bu baax a baax ñun nag loolu bokk na ci li ñu yëkkate waaw mooy mooy mooy mooy tabarruk mooy mooy mooy barkeelu waaw ak ak ak ak ak ak mëdët yi nga xam ne nafaxaatul ilaahiya yi wàcc ci bisu mel nii loolu moo moo tax yenn jooyu lañ lañ fas ci suñu dëkk fii ci béréb bi waa ngir xam na ne eh, ni ma amal bi niyaat loo yéen rek di jëf yëpp ci yéen la waaw waaw waaw waaw rawatina nag mu doon fa béréb boo xam ne euh, woote yàlla bu bëri bi bi mu la ci Sëñ euh, te mu doon yeesal li fi yëndu sansam euh, bàyyi woon ci lépp waaw yàlla jaag lépp rek yeesal googu fii la tàmbalee waaw waaw ci ci béréb bu tedd bi waaw loolu nag lool nag loolu loolu lépp daal bokk na ci li ñu yëkkati ñu ñëw waaw ñu ngi ñaan yàlla nañ dajeek yàlla nañ ci dajeek moom tawfeex waaye nag yàlla dogal nag bi ñëw tamit ñi fekk suñ suñu mbokk waaw di suñu di suñu xarit waaw mi xam ne waaw waaw moom moom lépp gën a tawfeex nag waaw mu doon koo xam ne di suñ mbokk suñ mbokkum deret waaye waaye suñu xarit waaw ñu yàgg lool te yàlla rek tax waaw ñu ñëw dara moom fii ci béréb bi waaw kon nag eh, ñu ànd ak suñu Saliou Diouf ak ak ñu ko waxee suñu Cheikh Mbacke suñu àggamee kon kon kon daal ñu ngi sant yàlla ñun daal ñu ngi sant yàlla bu baax daal waaw waaw waaw waaw ñu ngi sant yàlla bu baax xam naa kàddu yi moom <laughs> daanaka moom moom moom lu bari bari rek bëri rek mënta ta paase sant waaw mu doon yéen ci ak ak dox mbokk nag bu wér ak yeesal liñ seqoon lépp waaw suñ suñ diggante waaw waaw waaw suñ diggante xam naa suñ diggante moom daanaka neexut a wax waaw waaye nag yéen ci lu bëri daal waaw waaw ah. waaw waaw waaw ndax waaw waaw ndax ci daara ja daara si mu taxaaja foofu lañ foofu lañ foofu lañ foofu lañ foofu lañ foofu lañ ñekkoon nekk foofu lañ foofu lañ xamante yàlla nag mbokk yi ñëpp a nga fa waaw waaye moom nag mel na ne damaa damaa féetewoo daal waaw féetewoo gi tamit yaatu lool waaw ba ci kër gi moo ñu seqal bëree bëri bëri waaw loolu lépp nag eh, xam na loolu ba xam na xam nañ ko daal xam nañ ko xam nañ ko te yëg nañ ko bu baax te yàlla lañ koy seetal nag ak ak yàlla ak ak ak ak mbokku yàlla mbokku suñu Tuubaa gi bu wér daal ci suñu xol eh, waaw daanaka daanaka dara amul lépp suñu borom la daal waaw waaw loolu daal moo ñu indi fi ñi sant yàlla nag te di ko ñaanal baax ndax suñ dafa yaatu suñ dafa yaatu lool yaatu goo xam ne ñëpp ci man a jëriñu ñëpp ñëpp ñëpp kenn ku ne néew ba nga toll rek am na ñu la war a fekk foofa ñu la war a fekk si ci néew booba jëriñ la jëriñ la xam nga moo waral boo gisee yëpp njariñ njëriñ rek la ndax yëngatu yeeg ak ak ak ak liggéey yi fi am ak joxe addiye yeeg lépp ci doomu aadama yi lay delluwaat te loolu lépp waaw waaw ab liggéey la xam nga mm-hmm. kon amul leen amul yoo xam ne waaw luy sànku la waaw bu yéen yi sellee mm-hmm. te loo loolu rek moo moo fi am te loolu lañ ci fas mm-hmm. waaw te loolu lañu gis kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax daal waaw waaw di ko ñaanal bu baax barke maam bi Cheikh Lamine Bara mi nga xam ne mooy borom bis bi waaw waaw nga xam ne <laughs> waaw ñun moom tuuti nañ ci ci wax sax waa ci relation bi am ak bis bi. waaw ñu ngi ko ñaan ñu ngi ko ñu ngi ko ñaan ci barke moom moo moo mbooleem kili ay kilifaam ak mbokkam ak taalibe yi waaw ak mbooleem ñaam yéen yëpp leen ñaan waaw di yàlla di séddale ci bis yu mel nii yàlla bu yàlla leen ci kenn ëppale biitu بشرني والبشر علم ورسول الله ماموله وواف بدعاء رسول الله بشرني والبشر بالله الشهرات

الشرعي بسرني والبسر la nañ fajug aajo ya yor ko yaa say xanaa te yaay faj suñuy aajo ñun sant nañ fajug aajo yaa yor ko yaa say xanaa faj suñuy aajo ñun sant nañ texe jam ñi yaa yor ko yaa say xanaa texe nañ ci yow Mbàkke ñun sant nañ texe jam ñi yaa yor ko yaa say xanaa texe nañ ci yow Mbàkke ñun sant nañ borom màggalug Tuuba santay li wara ci yow fawu Mbàkke de ñun sant nañ borom màggalug Tuuba santay li war ci yow fawu Mbàkke de ñun sant nañ dal dal santaat la yaa say xanaa ñu dellooti santaat la ngir yaa fi gën te ñun mbàkke yaa baax ci ñun sant nañ borom col gu weex ge waral rafle wuñ dogon moom dañuy rafle bay ngem bu tey ku tal se war ci otom jug di dem na yëg lépp bu mooma xewal yaa ngi tey ku tal sañse war ci bu otom di dem na yëg lépp bu mooma xewal yaa ngi tey te moom fas la daa war te tey noo ngi nii oto kii vion nun war di wéy di dem ak di ñëw ndaxte moo dem ba ñëw bu dul woon demam ga de duñ tal ko tey ñu delloo ti santaat la yaa amoo maas moroo te woo ñëg nag ñi wiy ñu delloo ti santaat la yaa say xanaa morooman te woo ñeeg ñi wiy borom muñ mu neex ma te kàddoom ga neex te kaalaam ga lool de moom laa di way borom muñ mu neex ma te kàddoom ga neex te kaalaam ga lool de moom laa di way borom kaala googe waral kaala yi ku tal kaala wooti na koy sant tey borom dalli karbat ya moo tax ba nuy maraaki su tey ji di sant ak di way borom fidwa ak ngor ak jom jëcey borom fidwa ak ngor ga ak jom jëcey fitam waa waral tey ñu am feet bu rëy fitam waa waral tey ñu am feet bu rëy te mooy màggalam gi ndamam laa ngi cey di nuyu bu baax tey ziyaara kilifa gu baax bu tedd gi nga xam ni ci ab ëttam lañu nekk muy sëriñ Abdul Aziz Mbakke moom Cheikh Mahamadul Fadal moom Cheikh Abdul Aziz moom Cheikh Mahamadul Amin di ko ziyaara te di ko ñaanal yàlla sunu boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram te bàyyi ko ak xelam mu sell ak yéeneem yu sell ji nga xam ne am na ko ci liggéeyal maamam Cheikhul Khadim di ñaan suñu borom sàmm ko te taxawu ko ci zahir ak ci baatin ndax bu loolu amee rek lépp dina baax di nuyu bu baax mbokkam mu baax mi nu fekkool muy sunu sëriñ waaye di sunu xarit waaye di sunu ustaaz muy Cheikh Mahamadul Fadal sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu bu baax Mbakke te di la ziyaara te di la ñaanal sunu boroom yàggal la fi te defal la ak wér ba nga mottuli sa yéene ci liggéeyal sa maam ju tedd ji Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu di nuyu mbooloo mi yépp di jël nuyoo bi ak ziar bi te ko teg ci loxoob sëriñ Pape Mbow sumu xarit sunu wëllëre mu jàllaleel ma ko ci mbooleem mbokki yépp di nuyu bu baax ak sunu wëllëre bu baax wee muy sëriñ Abdou di kenn ci Serigne Abdoul Aziz nu di ko nuyu di ko ziar di nuyu mbooloo mi yëpp bari na ci ñoo xam ne xam naa leen mën na ma jaar ci seeni tur waaye bu ma tuddee ñoo ñu yóbbaale ñëpp di nuyu waa Loomeen gi nga xam ne ñooy dugg si ñuy sunuy bokki taalibe bi di waa Tawe te di leen ziara di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax ñoom samay gaañ lañu di nuyu sëñ Moussa Gueye xasaay sëñ Moussa maa ngi lay nuyu bu baax te di la ziyaara di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di sant yàlla bu baax ci teew gi nu teew ci barab bu tedd bu sell bii nga xam ne ku fi teew rekk teew nga ci barab boo xam ne benn barab wecciwu ko ci sëriñ bi ndax démb rekk maa ngi wax ci benn télé ne Mbàkke Kajoor day dëkk la boo xam ne jig na sëriñ bi ndax fi la sëriñ Touba taxawalee lépp waaye dem ba ñépp di ko séen ak di ko allawtiku ak kenn ku nekk gën di sëriñ bi loolu sëriñ Tuubaa ngi ko taxawale ci dëkk bi ñu nekk tey muy Mbàkke Kajoor barab la boo xam ne sàng bi may dugg ci dëkk bi sama yaram dafa daw ndax damay xalaat jamono yi asas junneeg ñetti téeméer ak benn ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sëñ Touba nekkee fii ci dëkk bii ndax sëñ Touba mooy koo xam ne boo xoolee parcours am ak ay jaar-jaaram dangay xam ne jom jee bari waaye dund gi yépp ay coono la ko toggoo boo ñëwee Mbàkke Kajoor gii jóge fi dem Poroxaan jóge fi dem Mbàkke Bawal jóge fi dem ci géej gi dem Gànnaar dem ci yeen jolof dem njaareem jëmm ji lu mu toggoo ci ay coono ci dund gu gàtt gi soo ko doon xayma ki sunu ati léegi da nga naa warata mën a nekk nga xam ne dalluwul dara moom Cheikhul Khadim fii ndeysaan ci dëkk bii di Mbàkke Kajoor fi la bàyyam wàcceb liggéey muy sëñ Mor Anta ñu jël ko dem denc ko deqali bi sëñ Touba demee ñu taxaw ko ba noppi daa dellusiwaat ci dëkk bii di Mbàkke Kajoor bi mu dikkee tam woyal liggéey bi fi woy juram bàyyi woon mooy yor daara di jàng ka jàngale sëñ Touba nag jëkk muy ñëw sëriñ boo dégg ñu koy soow xamal ne sëriñam daala rek muy yam ci téere yi rek li téere yi jàngale nga jàngal ko koo jàngal ba mu man la nga ko jàngal soo ko neexee beru ji dem samp daaraam ñoom ñëpp sëriñi dex la ñoon waaye amoon na luñ manqué woon muy sëriñu géej sëriñ bi bi mu dikkee nag wéyal li way juróom bàyyi woon ba ci diwen si fii ci Mbàkke Kajoor la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk musaafaha ak moom muy koo xam ne daa jàkkaarloo yow di wax ngay wax yonent bi ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat wa rabbi kulli waxidin minhum bi ma yaliqu bihi faqad ayyanaka allahu mujaddidan li hada diin yonent bi ne ko yaral sa ñoñ muy sa taalibe yi ci himma te bul yemate ci njàngalem kese mi xoolal ko nekk la yàlla ci moom nga def ko ci moom ajjuma ji sëñ Tuubaa loolu di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor bi sëñ Tuubaa waxee loolu ajjuma jooju mbooloo mi dafa bari ba daara ji nekkoon Mbàkke Kajoor ci jamono jooju muy daaray sëñ Mor Anta Sali sëñ Basiiru nee na bokkoon na ci daara yi gën a nëri ci réew mi te gën cee siiw ëpp ciy dongo waaye bi mbooloo mi li ñuy bari bari bi yonent bi ñëwee wax ak sëñ Tuubaa ba noppi sëñ Tuubaa daa génn rek jàng ñaari discours yu gàtt benn bi sëñ bi dana ala man kaana saxibana li taallumi fal yartaxil wal yawi li jinsihi min xaysu saa wa man araada maa aradna fal yasir bi sayrina wal yaqum bi amrina bis ni ki tey ku fi ñëwoon itam njàng indeen la fi yuy naa la man ngaa teg sa njër te wuti sëriñ buy jàngale mu jàngal la fu la soob képp koo xam ne li ma bëgg la bëgg nag na pare te tënku ci samay ndigal te dox ki sunu doxin nu dem boobu mbooloo mi li muy bari bari ci daara ji bi sëñ Tuubaa waxee lii Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na ila dihabil jull wa baqa il xul li gën a bari ci daara ji dañoo dem li gën a néew des bi sëñ Tuubaa waxee loolu daara ji daa baj-baj yëngutu yëngutu bu tar ñu ne waa al usul ilallahi bi duudi taalim ak ci yàlla ci lu di ti loolu moom lu mu doon ndax nee naa la sëñ Tuubaa moo fi indi ak àggale nit ci yàlla ci lu bokkut ak méthode bi ñu xamoon léeg-léeg nga gis koo xam ne danaa mbokkam walla xaritam nañ dem bul fi toog ndax ay téere dong la ñu xam buñ ko fi bëggee jële mooy indi nañ fa luñ xamul léeg-léeg nga gis ku ne mbokkam te ñoo toog ndax kii kat ni xamoon ci moom ci njalbeen ci maanu ak ragal yàlla ak nangoo topp sunna war naa mën a woote lu ajjuma jooju Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana ak magi nettalikat yëpp saxal nañu ne sëñ Tuubaa ñetti taalibe rek la am ci Mbàkke Kajoor sëñ Adama Gaye jébbulu Cheikh Ibrahima Sarr Diagne Cheikh Massamba Diop Sam keroog ajjuma ji li daara ji bari bari ña fi nekk ñëpp dañoo laxas dem ñetti taalibe yi képp a jaayanteeg sëñ Tuubaa ci dëkk bi fekk na nag kàngami murit yu bari yooyu dégg boobu nekkuñu fi bu dee sëñ Mandumbe Xabbaan nekku fi woon dafa demoon majjaali ndax daara ji dañ daan def bu ñuy yalwaanee bii yoon bi ci des ñeneen ñee yalwaani sëñ mënu ba dajee nag tu ab tuuram ñëwoon mu demoon yalwaani moo tax fekk ko fi bu dee sëñ mbakki bu sa fekk ko fi woon ma nga woon ngi faal di jàng xam-xamu miraas bu fekkente ne ji sëñ daam abdourahman loo fekk ko fi sëñ tubaa du ko yónni woon mu woowoon si ahmadou gay jam mooy mu gunge ko ñoom ñaari ñu ànd dem moo waral ñoom ñaari itam bi jaayante gi da am fekku fi bu dee ku mel ni Ibra Fall yoon wi dox na ba ca diwén sa mu soog a moom itam jaayante gi fekku ko fi waaye sëñ Touba bi mu wootee fii ci Mbàkke Kajoor su borom jox ko ndigal mu wootee bi sëñ Touba wootee kaddu sëñ Touba gi daa sar képp koo xam ne am nga baatin dara. yëg nga ne jamono ji borom jamono woote na bu dee Cheikh Ibra Fall sun borom ci boppam moo wax ak moom xamal ko ne ko ci ko moom muy Sëñ Tuubaa woote na na ko fekk mas xibaar ak jébbuloo bay wax ne yàlla mi ko moom moo ne ko Bamba moo la moom raasi ko jox ko say pex moom sun borom ci boppam moo ko xamal ne ko Sëñ Tuubaa la moom muy wër Sëñ Tuubaa di wër Sëñ Tuubaa ba fekk sëñ Touba ci barab bii di Mbàkke Kajoor jaayante moom jaayante bu rëy ga ci dëkk bii la ko Cheikh Ibrahima Fall defee sëñ Touba dëkk bi itam fi la sëñ Maxtaar Mbay Kéré jàng xam-xam ci Ndar ba fees dell di wut lu ko yóbbu mu bëtt dex gi dem ci maam askamara yokke jóge ci maam askamara dem gànnaar yokke alluwam dégg lu mel ni ngelaw di dugg ci noppam nan ko maxtaar mbay maxtaar mbay maxtaar mbay ba muy ñetti yoon mu ne ko demal wuy ji Ahmadou Bamba sëñ Maxtaar Mbay bu magam sëñ Cëll Mbay ñëw ci dëkk bi fekk sëñ tubaa fii la sëñ Maxtaar Mbay kere jaayanteeg sëñ Touba sëñ Maxtaar Mbay kere kere bi mu agsee sëñ tubaa am sant la ko jox ne ko demal daggale ma sayu si lan bi mu ne wëriñ wan ginnaaw sëñ Touba sëñ Touba da ko joxor bi ne leen jëmm jeeri dem da ku dul Ahmadou sañatu koo liggéeyloo fii la jaayanteeg sëñ tubaa dëkk bi itam fi la sëñ Aliou Touré baarakallahu jébbaloo ci sëñ Touba jaayante sëñ Aliou Touré baarakallahu moo ne woon sëñ Touba baarakallahu Mbàkke noonu mag ñëpp géejël nañ joxal ndaw ñu war a judd suñ ginnaaw sëñ Aliou Touré aw niir a ko daan topp ko Aliou Touré Ahmadou Bamba moom demal wuy jug Aliou Touré Ahmadou Bamba la moom demal wuy jug ko Aliou Touré Ahmadou Bamba la moom demal wuy bi ko niir wi sonalee ba mu tàggu baayam ne ko damaa bëgg na seeti sëriñ boobu dem xooli mbiram ba xam bàyyam na ko mën ngaa dem sëñ Aliou Touré fii la ñëw fekk fi sëñ Touba jébbalu keroog bi mu ñëwee sëñ Touba da ko bayloo ab dëpp néeg mu bay ab dëpp néeg bi dëpp néeg bi mat Seydunaa Jibril ne ko sa borom kat xamal na ne kooku di soog a ñëw muy Aliou Touré danga ko wàcce nga xam ne sëñ Aliou rek ci bis bi la wàcc fii la ko sëñ Touba wàccee ne ko ku jébbalu ci yow mel na ni ci man nga jébbal muy Mbàkke Kajoor gi Mbàkke la sëñ Touba doon xool mbokkam ma Cheikh Amadou Fa Jamañan ndax Cheikh Amadou Fa Jamañan euh, soxna Fa Jama Mbàkke mi nga xamante ne ji mooy ndeyam ci waa Maaram la bokk fii la ko sëñ Touba doon xoole ba yàgg mu ne ko Ahmadou tee ngaa ñëw jébbalu Cheikh Amadou Fa ne ko jébbalu lu may jariñ ak lu may dolli ak fu may yóbbu sama njoowal ji lay toll bu waamale ul axlaa di déente ca kaw ma di ko dégg sëñ Tuubaa li ko déggub déyaale da baax na waaye fexe ba di ko fekke ak bala ñoo déyaale di la ko yëgal nga yëg ko moo ko gën a wóor te jëbb la koy maye Cheikh Fall ne ko waaye man li ma am baax na sëñ Tuubaa ne ko bon baax na waxtu julli jot sëñ Tuubaa ne ko bismillah taxawal na julli Cheikh Amadou Fall jamañang taxaw ci kanam sëñ bi biñ ko leqaamalee bi mu bëggee tare fatihatul kitab bi mu ne alhamdulillahi rabbil alamin sëñ Tuubaa daal rocc li mu yoroon mënut a jàng fatiha mu tàmbale waat saaru alhamdulilahi rabbil alamin gag saa yi mu tàmbalee saar yu gag du mën a dem mu dagg julli gi jox loxo sëñ Tuubaa sëñ ne ko ndongali nu tas la takkaat la wala nu cóot la nu tas la takkaat la wala nu cóot la nu la takkaat la mooy nu formaté la supprimé la ba nga seet dara duutu fi des wala nu cuut la nu renforcé la bàyyi nga dem mu ne ko Mbàkke tas ma takkaat la sëñ Tuubaa ne ko li fi yow ba nga yëg ko di ko ndamoo ndax xam nga nu mel fi noonu mu ne ko déedéet mu ne ko mi ngi mel ni sibetiitum ndox rek fii la sëñ Tuubaa formaté si amul faa jëma at yi may tërbiyewu mun ta jàng faatiha xamul dara ci moom bi sëñ Tuubaa pare day jorom ànd ak moom jóg toogaat xam-xam bi del si baatin bi del si wilaaya gi del si mu dégg mala ulax laa di déen daña naa nan nekk ahmadou faa jëma ñag jëpp ahmadou faa jëma ñag moomu la sëñ Tuubaa defaral lu bari fii la sëñ mënu ma xabban jëpplu borom dënd yi jàmbaari sëñ tubaa ji nga xam ne sëñ tubaa seede ne sëñ mënu ma xabbaan murit saadix la te sëñ Mourou Moustapha nee na dégg naa ci sëñ tubaa mu ne sëñ Mbakke Madina ak sëñ Cheikh Amadou Gaynde Fatma la ko waxoon ne leen dégg naa sëñ tubaa ne mbootu min mboote murit saadix ba mu fer mbootu min mboote kumalu awliya yi maanaam wël yàlla yi mbootu min leen mboote ba mu fer suñu xëyoon suba mboot ci murit saadex balaa yoor yoor mboota mi dagg ci digg bi sëñ ma dumbe xamban murit saadex ba fii la jébbalu fii la sëñ Daaru Asan Njaay jébbalu fii la sëñ Amadou Faa Jamañang jébbalu fii la sëñ Mbàkke Buso jébbalu fii la sëñ Amadou Géey jëm mooy jébbalu fii la sëñ Amadou Njaay tàggar jébbalu sëñ Adama Géey fii la jébbalu Cheikh Ibrahima Sarr Diagne fii la jébbaloo Cheikh Massamba Diop fii la jébbaloo sëñ Daam Abdourahmane Lo fii la jébbaloo Cheikh Ibrahima Fall fii la jébbaloo sëñ Makhtar Mbaye Kayre sëñ Aliou Touré Baraka Law ponkal ya àndal ak sëñ Touba mat nañ ñeent fukk ak lu teg boo leen di lim fii ci Mbàkke Kajoor leen jébbaloo fii la sëñ Touba taxawale yoon wi. njariñ yaa ko yor Mbàkke ñun sant nañ fajug ajo ya yor ko yaa say xanaa te yaay faj suñuy aajo ñun sant nañ fajug aajo yaa yor ko yaa say xanaa te yaay faj suñuy aajo ñun sant nañ te xej jam ñi yaa yor ko yaa say xanaa te xee nañ ci yow mbakke ñun sant nañ te xej jam ñi yaa yor ko say xanaa te xee nañ nañ ci yow Mbàkke ñun sant nañ